Adja Aminata ja déen géej waaw man dema dama dugg sama salle bi sangu ba pare ma génn solo guma sax mbubb ma gis ay nit jàppandoo sama doom Moustapha di ñëw ma ne leen lii lal mbaar jàmmal mbaar jàmmal ñu ne ma dañuy laajte dañuy laajte am na ku ñuy laajte fii ci kër gi am na ku fi dugg ma leen kan moo du dugg ñu wax ma tuur bi ma nekk mais kooku dëkku fi bi may wax noonu rek xam nga ñoom sandarma ñaari sandarma lañ ak benn waay bu nee nañ ku dudd alpha ndekk kooku du sandarma kooku du sandarma moom mooy borom peleñaa bi léegi mu daal ma boom ak jàll ma fekk ko ci biir néeg bi mu yëkkati lal bi bi ci kaw door ko suuf dal di ko damm ubbi armoire bi dugga saal di bee bi génn léegi nag mu dem saal bi dal di puus ay sees yi puus ay sees yi puus boobu jàpp nañu sama doom bi ñun di dañu koy jàpp ma ne leen yéen lu tax ngeen jàpp bi jëkka bi ñu ne doomu kooku la ñu ne ko mais dañu dañ kii dañ def leen di woon seen papier ngeen xam ne kii santul santul noonu do doomam kii sax mënu ko jur ñoo maase ñu jàpp noonu sama doom bi nag dal di jëm si oto bi gendarme yi waa nag dugg ci kër gi nag waa ji muy rëjëk muy rëjëk muy dajj néegu paa bi dem yëg ci kaw dajj fekk fo xale bu jigéen muy togg añ mu dajj foo buntu bi dugg ñëwaat pousse seesi ñëwaat dal di tes tes daal di génn dem ma nekk yow li nga def amoo ci benn droit ndax yow boo doon soit ku rey nit sax amoo droit dugg si néegu mag bu jëm ngay ngay ngay kii ngay dëj ay bunt amoo ci droit mu ne ma meer noppi ma nekk du ma noppi nga ñëw sama kër di rajak ba par jàpp sama doom di ko ceen nga mu wax defuloo dara pour lan mu ne mu ne moom sandarma la ndekki moom sax du sandarma alpha kon alpha jaala tudd alpha jaala tudd mu daal di rejek fii lal bi puus fu nekk mu xool ko mu daldi dem nag mu jaar côté bii dem nag di téléphoné ma fekk ak foofu ma nekk yow xale sama doom bi nga ceen nga nga ne danga koy yóbbu moom defu la dara ki ngay seet danga ko war def ndànka nga seet ko nga jàppa ko waaye fii kii defu la dara mu daal di ma génn rek mu daal di jaaraat beneen buntu bi boo xamante ne buntu bi policier gendarme yi ñu ngi taxaw fale ak ak ñoom paay bi paay mu duggaat beneen buntu ñëw dugg ñëw jël oto paa bi muy kecc buntu bi di kecc bu yuur na suuf mu dugg ubbi kaaru kii mbaaru kaar mi am na benn bant bu fa nekkoon mu def nii banta bi banta bi muy gaañ kaar bi ma nekk yow yaa ngi gaañ kaar bi waa Alpha Dia moom taxaw ba mu nii man saaga bi moom saaga moo ma métti saaga bi moom saaga kenn musuma ko saaga dégg nga mu dal di dem yoon mu dal di demaat fee fekk fa ba paay dal di bom ak paali mu ne paali ñuus leen fale yéen ay fenkat ngeen boobu nag policier bi dal di sama doom bu góor woo ko karitam mu waxtaan ak moom kooku bay xale bu góor bi nii daal demee mais waa ji moom tooñ nañu ba tooñ yëm benn kër gi fi mu ñëw nit ki dëkku fa nit ki dëkku fa nit fu nekku fa am na kooku am na kër am na njaboot xam na xam na waaj xam na ki muy ki muy seet xam na ko xam na këram xam na fu mu nekk muy ñëw suñu kër di ñu saaga di daj suñu bint dàmm sama laal man tey damay wa damay fanaan néegu jàmbur parce que dàmm na lal bi mais moom def jaaraat gannaaw police yi sandarma yi la jaaraat gannaaw def jaar beneen bunt bi ñu nekk taxaw foofu ñëpp taxaw si police sandarma yi mu wóol jaaraat beneen bunt ñëw fekk ma fi saagaan ma saaga ma saaga yu bon di ubbi ay xar di ubbi ay firgo amu ci benn droit yéeg be ci kaw. bi mu jàppee ma ne leen est ce que yéen policier ngeen sabu lii damaa dem ba ci policier bi mu tiite waa bi muy def fii loolu dem naa ba ci policier ma ne leen est ce que yéen sax du ngeen ay bandi fekk da ngeen bëgg rey sama doom mu yokkati lii woon ma ci poosam mu ne nun ay policier lañ ma nekk nag kii nekk fii nag di saaga di toj di def lu nekk mu taxaw fee mu ne man defuma ko dugg ma ci kër gi di day fen moom moo dugg si kër gi. man bimu yebbe bimu bimu yebbe sama dom be pare mané ko waw yenté sak len wol wul sak est ce que sak bu fekkente sen police lañ xamna sama dom mu ngi tegu ci la wor waye dama xamul ndax ay police la fa fan ngeen jogi ak fan ngeen koy yóbbu mu ne ma ko la bar lañu man kam nga man la laa jeboot la man jam rek la bëgg ndax tay ñoy ma ngi yëndu skeet gi man ak sama jabot añuma añuma naanuma attaay naanuma ndox sama tension yang bangi monte sama estomac bangi ngi yëngu njaboot laa de li bu fekkoon tey yeneen poli di dañu yor ay dinañu leen dóor di kon tamit day bu fekkoon fi ay góor mu taxaw di ma bu bu fekkoon fi sama dom yëpp tamit day am day am benen problème parce que mun nañ leen dóor mu gañu gañ leen ñu am benen problème fekk ñu defu ñu kenn dara jëluñu alalam ñu ko dara waaw maa ngi tudd alhaji youssoufa ba délégué de quartier diini géej nord ah, man daal dama toog fii ci diggu bëccëg rek benn waay ñëw mu ne ma ana boubacar ma ne ko boubacar këram mu ngi nale suñu diggante suñu kër yi ah, presque 300 mètres ma ne ko kër yi mu ngi nale mu ne ma ah, man dama defe ne woon yow la ma ne ko déedéet boubacar këram mu ngi nale mu mu di mu daal di jàll foofu ndekete ndekete gendarme la mu ngi ba tuuti sama doom ñëw ñu comme ni muy ñëwee ñuy waxtaan rek mu ne ma yow am na ñu nit ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi tafu ci miir bi ñu ngi yor benn 4 x ak beneen waay mu ngi nale ma ne ko ah ñu ngi tafu ci kër gi ma jóg dem ma ma yuurndu miir bi rek ma seen ñuy dow ñu ñëw ma ñëw toog ñu ñëw fekk euh, euh, ma ne ñu ne ma ana Boubacar ma ne ko Boubacar mu ngi këram fii du kër Boubacar kër délégué de quartier la du kër Boubacar Euh, ñu ne ma nag euh, ñun ay gendarme lañu ma ne ko gendarme fan ñu nekk góor gi ñun ay gendarme lañu te dañuy visiter kër gi Boubacar mu ngi ci kër gi ma nekk ko Boubacar nekkul fii da ngeen di dem këram fii du kër Boubacar mu ne ma góor gi ñun man wax naa la ay gendarme nañu de man ne neen na ngeen nekk gendarme su ngeen nekkee gendarme nag qu'est-ce qu'il a man awma soxla ci loolu de rek ñu daal di jóg ñu jubal buntu kër gi ñun ñëpp ñu ànd ñëw ci burku kër gi euh, sama doom génn portable am mu ne mu ne dañu ko ñu jàppa ko ñu jàppa ko wañaar loko bi ba ñu gaañ ko ñu nekk dañu dafa ñuy filmer ma di leen wax yéen yéen li ngeen di def tegu leen ko fenn de bàyyi leen li ngeen di def léegi ñuy ñu ñu poñee na si di saagaan di saaga na si euh, ñu dugg ci biir kër gi noonu waa ji waa ji ñëw waa ji waa ji dugg ci biir kër gi mu ne ma kaay mu ne ma kaay damay visité kër gi léegi nag euh, ba mu duggee ci biir kër gi mu dajji meer moom daal day dajji bayee bi du xaar ñu ubbil ko du def daal day day def parak parak mosuma gis nit kuy def noonu mu dem sama néeg mu dajji ko mu dajji sama salle de bain mu dem ci kaw ci benn cuisinier bu nekk foofu mu dajji ko sama soxna si nek ci kaw mu dajj baye bi mom dal fu mu ñew mu dajj mu mu melni ku mandi mu dem dernier neeg bi mu ci kaw mu dal di ñu dal di man ma wàcc ma ñew fekk ñu ceene tafa ñu ci biir auto bi waaw ma leen ban ban ban lam ñu ne mom ñun brigade de recherche gendarmerie brigade de recherche de Colobane waaw ma ne leen su ngeen bañee lu leen filmé xanaa da ngeen di nëbbatu ñu ne ma amul amul droit filmé ñu waaw après sama mag ñëw euh, kooku muy wax ak moom ñu saaga ko moom daal ñuy pamti pamti nit ñi daal nu leen nekkee ko waaw léegi nag euh, affaire bi ñu woo gendarmerie ba gendarmerie ba laataa ñëw boobu ñoom dow nañu dem nañu. ñun nag léegi dinañu ko teg ci yoon waaw. woote nañu fi après woote nañu fi ñuy wax ne nañu leen jéggal euh, loolu dafay yomb parce que euh, ñun duñu ay golo yu dëkk ci àll bi soo ñëwee nga def lu lu lu la neex waaw